loo gis am na fu ko yàlla yemale mais ñoom kayit bi ñu jox ak bi ak li ñu def nii du benn parce que kayit bi ñuy jox trois jours ñu ko jox fu nit nekk lu ma ñaar fukki nga di ko fayoo ko ba bëgg mu jóg lu mu néew néew war nga ko may parce que fi mu ne am na ñoo xam ne ñu tey suba du ñu xam ne ñu joxe dépense te wóor na ma wóor yàlla nii tamit fi la fekk marché bi ay ay maire yu bëri jaar fii te waxuñu woon lii bu dee yàlla na taw Wow, budaya lah, nak na tawee xam. du ñu jóg xanaa ñu dem ba dee rek dee rek dee rek moo ñu fiy jóge waaw dee dong moo ñu fiy jëkkati. bu doon suñu classe bi amul problème ñun mënuñoo ànd laa mënuñoo def lépp mais am maire yoo xam ne wala ay paa yoo xam ne ñoom mënuñoo liggéey mënuñoo ànd nan def 30 ans 40 ans ñu ci marché bi ñun ñu ay xale sax garaaw mën nañoo dóor waar def mais ñi nga ay mag lañ ñi nga xam ne ay mag lañ ñoom ñoo def dara ñoom nu ñuy def nan la ñuy def te am na pas yoo xam ne bu ñu xëyee tey dañu am duñ la passé suba mais boo leen ko nu ñuy def ñoom amul ñu am bilan ñu dara dañu ñëw rek jox ñu kayit nañu jël leen seen bagage xamul nag xamul nag luñ ci jublu xam nga. ñu ñëw nag ak seen i ndiiraan di di di yàq suñu suñu suñu palaas. bu fekkee ne amul fu ñu mën a teg mu jox ñu délai boo xamante ne si ñun dinañ ko mën a dégg mais yëkkati ñu ci ñetti fan loolu déggut fenn ñun loolu lañ ci a kaas. ñetti fan la ñu ko may yëkkati ñu ñu ngi nii xamul fu jëm ak seen i